kon ñu teewlu Serigne Bassirou Kane nga ubbi alxuraan ñu teewlu Serigne Cheikhouna mu ubbi waxtaan bi doog a ubbi délégation bi kon ne waxtaan bisimilah Bassirou. sëñ Galas dafa wax ne bokkam yëpp teew nañu diggante Mbàkke ak Mbusoobe ak Afe Ñang nee na ñëpp teew nañu léegi bi mu nuyoolee par bi mu nuyoolee président Idrissa Seck laa ne ko sëñ Galas. nii la seen maam ya ànde woon ak Serigne Touba koo fi gis waa kër sëñ Maxtaar bu ñu toloo maa ngi leen di seen waa Mbusoobe maa ngi leen di seen waa Afe Ñang maa ngi leen di seen ci ndigalu Serigne Gass la kon daal président ñii ñoo yoonu murit ñëpp ñëw nañ ànd ak Serigne Galas kon ñu jox seen Basiru mu ubbi alquran أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إدريس واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا وارزقهم في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإيمان وإسلام وإحسان إلى يوم الدين bokki jullit yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu mbooloo bi fi teew mépp ci nuyub lislaam boobu ñu sunu borom tànnal subhaanahu wa taala taxiyatan min indillahi mubarakatan tayiba di ñaan li nuyoo bi làmboo te mooy jàmm ak yërmande ak barke sunu borom sotti ko ci sunu kaw te sotti ko ci kaw bépp jullit di yëkkati nag sunu kàddu ci ndigalul sëriñ Galas Kaltoom ci ron kilifteefu Cheikh Mouhamadul Moustapha moom Cheikh Mouhamadul Amin Baara mu jëm nag ci ganam gu tedd gi mu am di asayid Idrissa Seck di ganu Touba gépp nag ndax Touba la dikkal dal ak sëñ galas sëñ galas it dalal ko ci ëtt bii di ëttu Cheikh Mahamadul Fadil waaye dajale ñi mu am ñépp ngir teerul ko teralal ko ko mbooleem mbokki sëriñ Fallilu yi mbokkal maaram li ëpp ci ñoom teew nañ ci barab bi taalib yi nga xam ne Serigne Touba rek mooy seen yitte teew nañ ci barab bi loolu nag jubluwaay bi du dara lu dut ku ne xam na ni gan ci lislaam dafa am àq yonent yàlla Luut alayhi yi nga xam ne mooy magum yonent yi moom la sunu borom njëkk yebal ci mu woote keroog ba mu njëkkee am gan lam wax aw nitam mooy inna fii dayfi fala taftaxuun dane leen ñii kat ñooy samay gan rikk bu leen ma gàccaal ci ñoom sëriñ galas nag kàddu googu daf koo jëf dafa dajale ñi mu am ñépp muy bokki tuubaay yëpp ngir teral ganam gu tedd gi mu am ndax teraangay gan tënkuwul rek ci bernde diggante lekk ak naan waaye Sëriñ Tuubaa day wax ne loolu sax am na lu ko gën te mooy bashashatu waccil mar nga am gan mu jub la gis ci yow ak belli nee na loolu xayrun min al xiraa moo gën ay bernde moo tax bi sëriñ galas xamee gan gi muy am gisit sorte yu mujj yi nga xam ne gis nañ ko ci moom ak gis discours yi nga xam ne gis nañ mu di ko tenir lépp mu di ko tibbe ci alquran tax na ba ñu bari sawar na ci bi mu leen woo ñu ñëw ci barab bi ngir teere ko ganan bu tedd gi moo tax bi sëriñ Bachiru ubbee alquran dal di dal ci aayam boobu aaya bu njëkk boobu yi nga xam ne dafa làmboo tur wi loolu it mënees na cee jàngee lu ne mënees na cee jàngee lu ne kon day mel ne du doon kiimaan ci ñuy dégg ci gan bu tedd gii di gis ne discours yi ñu dégg mu di ko amal dafay xuus ci biir lëggi lëggi alquran di jàngale di joxe ay bind te loolu di lu jafe ci ñim séqal mboor mi nga xam ne ci lañu nekk te mooy ñim séqal mbirum yëngu ci bëgg a yor réew mi jàpp naa bu ñu nee benn ci moom duñ gaaw a wax ni ñaar ci koo xam ne gis nañ muy xuuse noonu ci alquran loolu nag mënees na cee sukkandiku ba lu bari ci li mu bëgg ci ñun ñu mën caa ànd ak moom li may wax nag man la engagé li taxit man mënees na cee sukkandiku mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci jamono saxaaba yi dañoo dem ci àll bi te seeg benn waay nekkul ci diine islaam biñ ko bëggee rey mu dal di tudd baati seere yi waaye teewul dañoo continuer rek rey biñ dikkee nag yonente bi alayhi salaatu wasalaam ñu nettali ko ko mu ne leen ba tuddee baati seere yi lu tey ngeen bàyyi ko ñu ne ko dañoo jàpp ne ragala de moo tax mu tudd ko mu ne leen tooñ ngeen ma ndax yàlla wax ji la leen atteloo waaye la ca xol ba yàlla rek a ko xam kon liñ dégg mu di ko wax na noonu buñ ci attewoo man de bu ma ci attewoo dana bokk ci ñi ma ëpp yaakaar ci ñoom te bokk na ci li koy waral dafa am ñaari mbir yoo xam ne borom xam-xam yi dañuy wax ne benn bi dañ koy wattandikulu lu képp kuy doomu aadama jëlale naa ab jullit waaye bi ci des dañ ci xiirtal képp kuy doomu aadama muy ñaari qualité yoo xam ne ay safaan lañ ñaari qualité yooyu nag mbooleem boroom xam-xam yi jàngale dañuy insister ci seen téere yi boo duggee sax ci mbindum Serigne Touba da fekk mu di ko tudd lu bari di ko wattandikuloo benn bi waaye di soññee ci benn bi benn bi mooy li sëriñ bi di faral di tuddee mawaa'idu urquub beneen bi mooy li ñu tuddee wafaa'u samawaat mawaa'idu urquub nag mooy li ñuy wattandikuloo waaye buñ xoolee li ëpp ci ñi ñu yàlla di booleel ñoom moom lañuy ñuy gën a fonk ñoom sax sax far bi ñuy soññee nag ngir ñu di ko matale dafa mel ne mooy gën a néew lu ñuy làmboo jikko ju mel noonu sëriñ bii nag di Asayid Idris man li ma jot a dégg ci ayat quraan yi nga xam ne dinaa koy gis mu di ko mu di ko leeral jàpp naa ni am na ci ilma am na lu ci xam te loolu mën na koo dimbali ba bi biñ soxla te di ca soññee jàpp naan dana ko bàyyi xel ndax urqu Sëriñ Tuubaa da koy wattandikulu urqu benn waay la woon bu yor toolu tàndarma am mbokkam mu ñëw ci moom ne ko dama bëgg nga may ma ci ci meññetum tàndarma bi ne ko dama bëgg nga may ma ci genn garab mu ne ko demal bam tóor tóor bu tóor tóoree nga dikk bi tàndarma yi tóor tóoree mbokk mi ñëw mu ne ko demal ba mu wicc mooy bu tàmbalee am ay doom bi eggee foofu mbokk mi dellu si mu ne ko demal ba mu mbënaxu mooy mu tàmbalee tooy bañ tàmbali koo mën a jariñoo eggee foofu mu dellu si mu ne demal ba doon tàndarma ju ñu mën a jëfandikoo bi mbokk mi demee nag mu daldi di topp guddi gi boor tàndarma yépp daal di leen jaayi ko ca ba joxu ko ci benn doom nga xam ne daf ko wor wor metti wor goo gii nag mbooleem gudda baaxu yi dañuy wattandikulu war gu mel noonu ba bu nit defee waxee lu nurut dañ naan daynub urquub rek la kaanat mawaacidu urquubin laha masalan wa ma mawaaciduha gayru alxiyaanaati loolu suñ tubaab di wax ci àdduna day wane ne àdduna lépp lu la digg boo ko dee yaakaar bay boo mu mel ne urxu moo la diggoon tàndarama nga di ko yaakaar loolu jikko la boo xam ne tisaaroo na ci suñu réew mi te lu mat a wattandiku la waaye jikko bi nga xam ne nag moom lañ soxla dëgg-dëgg muy wafaa us samaw al samaw al benn waay la woon bu dëkk ci àll bi nekk ci sange su kawe su aaru soo xam ne kenn mënu ko fa fekk imrool xays bi muy jug di dem ruum ngir xeexi jaar fi moom dénk ko alal ju bari bi mu demee yàlla àtte mu faatu ci xeex ba dellu benn buur bu ñuy wax Munzir nag dal di ñëw ci sama ol ne ko dama bëgg nga jox ma alal ji la imrol xay dénkoon mu ne ko alal jooju dey dama bëgg a matal kóllëre sama diggante ki ma ko dénkoon delloo ko ko wala ma delloo ko ay bokkam mu daal di jàpp doomam ne ko boo ma ko joxut ma rendi sa doom mu ne ko kon de man nga koo rendi ñu rend doom ji ci kanamam deret ji sang ko wàññee ko wan ko ginnaaw mu jël alal ja moom seet ña ko ña war a doon ko ko dénkoon mu jébbali leen ko matal googu mu matal kóllëre ba mu jaral ko doomam faatu kooku jikko la boo xam ne képp ku mu nekk ci moom it bu doomu aadama yi xamee seen alal ak seen der dénk la ko sa matal kóllëre sa digganteek ñoom doo ci jiital benn intérêt bu dul bàyyi xel loo yi te loolu lépp nag dafa am lu ko ëmb mooy waxe suñu borom jim naan wa awfu bil ahdi inna al ahda kaana mas'ula na ngeen matal kóllëre ndax ëllëg lu ñuy laaj la boo gisee nag ñu indi xisas yi ak aayaat yi buñ toogal ko feru ijji duñ ko feru ijji duñ ko indi waaye dañoo xam ne kii ñuy waxal xam na bu baax li ñuy wax te sawar nañ bu baax ci wax ak moom ndax boo déggee kuy jàng alxuraan da nga xam ba xam ku jàng alxuraan la wala dafa dop dafa topp rek traduction yi da ko xàmmee bu baax ci maxaarij bi da ko xàmmee ci tafsir bi kon liñ dégg mu di ko téye yoon la woo xam ne boo amoon junni dolli na la yeneeni junni te li feeg yaa ngi koy téye it lépp looy yootu yàlla mën na la ko jox beneen bi ci dolli ko nag mooy dama dégg mu wax baat bu am solo te mooy dem naa ba xam ne Serigne Touba lu nit yeewu yeewu mënoo koo nax waaye lu nit dof dafit moom du la nax loolu nag ku ko xam ndokk sëriñ bi lépp lu nit fas ci digganteem ak moom lu mu gis ci lu wuuteeg loolu na xoolaat jëmmam soxna Fat Ja mi nga xam ne mooy ab taawam daf daan wax ne sëriñ bi moom seetu la soo ko xoolee gis ci sa bopp loola naqari seetu bi sa jëmm rek la la wan sëriñ bi moom lépp lu nit gis ci sa bopp rek ci yow la waaye moom du ca moom moo tax nag sëñ Idris sëriñ Galas mii nga xam ne moom nga dikkal na nga yëg ne ku la fonk la ndax ñii mu dajale dajale leen fii ci tuubaa yombul yàlla dafa dogal mu bokk ci ñi gën a am Touba te bu ñu nee ñi gën a am Touba nag mooy am na ay bokkam am na ay dëkkandoom am na yi bi nit nag lu mu bari bari mbooloo te ay bokkam nekkuñ ci amul dara nit lu mu bari bari mbooloo. te boo wàññee mënoo génne fukki nit ci ay bokkam amul kenn moom nag ñi nekk fii ñëpp ay bokkam lañ ñépp ay nawleem lañ ñëpp ay doomi soxna lañ te it bañ fii ñëwee yàgg na te booba ba léegi kenn nanguwut a dem ngir jiina leen ko jikkoom rafet na gore na as gor la gore na ndax doon as gor taxut a gore ku doylu la it ku am kóllëre la it kon ànd gi nga ànd ak moom mu indi la ci barab bii na nga yëg ne bari na xol yu ci set bari na lool xol yu ci set hmm. waxuma indi gi mu la indi ci barab waaye ñëw gi nga ñëw biir Touba def fi ay fan léeg-léeg nga dégg nit mu ne xëy naa suba di doxantu te seeg moom muy doxantu jëm ci jumaa ja nga nekk ci biir pàkku Touba bi di bàggante dem ak a ñëw wóolu dëkk bi wóolu ñooñ dëkk bi loolu na sax ci sa xol rek nga xool diir bu gàtt nga xam suñ Touba mooy kan loolu mooy kaddu yi nga xam ne neewoon na danañ ko yëkkati jëmi ko ci yow di ñaan nag ñaan goo xam ne sama ñaanu bopp la li nga soxla di ko wut yal na la ci yàlla may ndam ci barkeb Cheikh Al Khadim wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu ngi leen di nuyu ci turu Cheikh Mamadou Fadal Baara ak magam Cheikh Mouhamadoul Moustapha mi mu génne léegi di leen nuyu ci turu bokk yi nga xam ne bàyyi nañu seen yitte yépp ngir jëmmi Serigne Fallilou mi ñu ngi leen di nuyu ci turu soxna yi nga xam ni dañuy bokki sëriñ Galas ñu bokk ak moom Cheikh Mamadou Lamine bokk ak ñoom Serigne Touba ca takkusaan ba léegi ñu bàyyi seeni yitte ñu ñëw teew loolu nag li ko waral président Idrissa loolu laa la bëgg a wax sëriñ Galas jëmm la joo xam ne lu mu nekk yal nay lu baax ndax lu mu nekk nit ña fekk ko ca ndax jikkoom ak teraangaam joo xam ne daj na yoonu murit doyuma ci nag seere ndax way juram moo ma boole woon moom muy alaaji Mamadou Lamine Baara bis boobee ba tey lu ma sol moo ko xotti kooku defuma ko defu defu ko defaluma ko man rek jikkoom nag day jikkoy yaaram di jikkoy maamam waaye noonu rek la mën a mel président Idrissa nde yaakaar danoo jigut ndax sëriñ fàllilu mii taxawoon na taxawaay boo xam ne dafa woon naa ne du mujj nii hmm. ndax lu bare fekke na ko ci ñàkk na alalam dox na togg na ànd na maak moom yóbbu ay togg ba biir présidence waaye nag Euh, dafa am loo xam ne président Idrissa boo jàppee sëñ Galas ñu jàpp la waaye boo ko cofee ñu wacc la ñun foofu rekk la ne jàppuñu la sëriñ Galas mii la ñu jàpp ndax politique moom lu ñuy wax la ak lu ñuy jëf koo xam ne danga ñëw ci bokki jàmbur foo xool ñu ne la Mbàkke busu ñang ba sant yu baax yépp teew ci sa kanam xamal ne jikko moo fi indi nit ñi du Idrissa waaye nag ànd ak ku baax day hmm. dana taxaraw te sëriñ Moussa sunu xarit sunu lépp gis nañ ni nga ko jàppe ak nem la jàppe sax sa jàpp ak sëriñ Fàllilu sëñ Galas ci sama kanam la ca Poroxaan waaye nag sëriñ Fallou daa yaatu de ñëpp a ko soxla dëgg la kon gannaaw téye na téyal rek te bañ a gestu ndax yàlla mooy fale waaye des koy sabablu ci ay doomu aadama waaye boo dalee ci koo xam ne xaritum ñépp di mbokkum ñépp man nga dalal sa xel te yokk say jéego te bañ a naagu ndax sëriñ fàllu am na ay bokkam am na ay mbokkam am na ay dëkkandoo lu mu soxla ci yoonu murit xanaa ki ko xamut waaye ku xam sëñ galas am nga loo ko war a faye wala loo ko war a lebal walla loo ko war a jox addi kon danoo bëgg jëmm ji nga xam ne day sunu lépp di sunu xarit ku ko téye na ko téye bu baax te bañ koo coof boo ko jàppee rek ñu jàpp la ndax loolu mooy li dëggu fi nun ndax sëñ fàllu day jàmbaar joo xam ne ku ko ñàkk danga nga yëg ne ñàkk nga ko waaye ku ko amit danga nga yëg ne am ko kon loolu rek laa ci am lu ma ci sànni di sant nag bokk yi nga xam ne ñëw nañu xëy na dafa xaw a guddi ba bari nañu dem waaye nit ñi ëppoon nañ li nga fi fekk te bu fekkoon ne daf ko woote woon bëccëg ah danga fi gis loo xam ne danga xam ne ànd gaag ku mat a kon nag nun sañ nanoo ñaan ci li sëriñ lu bëgg ci yow yal na ko yàlla sottal ci daraje maamam xaadima rasul ak bismillahi arrahmani arrahim asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. sëñ bi ñu ngi lay nuyu bu baax di la di nuyu président Idrissa bu baax di wax rek ne waaye xanaa ñu leeral tuuti rek kàddu yi fi jiitu yëpp am na solo góor gu ñaaw wax na lu amaam solo ba noppi muy sëñ Cheikhouna mi doon wax léegi kàddu yeneen yi fi yëkkati ko yi tubaarkàll waaye suñ fàllu lii jariñ président Idrissa incha allahu mooy élection ñun yàlla dafa def dañuy def politique ñu ngi ci bëggoon 1996 ba ngay def congrès PDS Stade Demba Diop ñu ngi woon toog ba ngay jëli Ablaye Wade France di ko indi ña nga woon aéroport 98 ba ngay dugal Omar Sarr mu nekk tête de fii ci département bi àndoon nañu ak moom mu ñëw fii di dugg oto Mbacké Touba ak moom 2000 jot yàlla def ñu jot ci réew mi man maa jiite woon UJTL 2001 nga def Omar Sarr mu nekk tête de bi fii ci département Mbacké list boobu yow yaa ko jiite woon ñun ñang ca woon comme suppléant amoon na nag lu doxoon suñ diggante ak moom ba mënuñu woon a agsi ci yow <laughs> li ma bëgg a wax kuy def politique dina ko xam ba fi mu ne ñi ngi def politique Moussa Tine xam nga ko bu baax wax naa ko mu seet si la ginnaaw bu sëñ Fallou ñëwee ci yow ca poroxaan la ma sëñ Fallou woo wax ma ne ma yëg nga li xew ma ne ko waaw mu wax ma ne mu demee fa saasa laa jël sama téléphone woo ko ne ko demal nga seet président Idriss ndax sëñ Fallou man dinaa ànd ak moom fii kon incha allahu jàpp naa ne alliance démocratique penco incha allahu danañu ñëw ànd ak yow yow tamit na nga ko woo te moom nee na ma mi ngi déggante ak yow élection yi weesu yàlla dogal na demoon nañ ak suñu list penco boobu conseil départemental tolof tolof yi ci amoon hôpital la ñu fekk waaye yàlla dogal na am nañ ay conseillers fii bu dee commune bi sëñ bi moo koy tànn sëñ bañ féeteel muy sëriñ Cheikhoum Sëñ Abdou Khadir tànn nañu dugal ñu foofu waaye sëñ bi nit ku koy jàppale da nga koy jàppale ji nit ñi laay waxal ñiy ñaan danañ ñaan ñiy def li ñuy def danañ ko def waaye élection dafa am nuñ koy doxale kilifa yi fi teew di jiital ci nuyoo bi Serigne Fallou Mbacké mi nga xam ne moo tax ñu ñëw fii ci jataay bi di nuyu ki nga xam ne tamit moo tax moom itamit ñu ñëw teerule ko ganam gu tedd gi muy sa Seck mi nga xam ne yal na ko yàlla def président ci at yi ñu jëm ci woote yi mu gañe di yaakaar naa ne dëkk bi miinoon nga ko lool xamoon nga ko lool ñi la fi gis ñépp daal la fi gis waaye boo nu masaan romb ci mbedd mi wala ñu seetaan la wala ñu gis la duñu jaral ñu yëq benn jéego waaye lu tax tey ñu ñëw mooy sëriñ Fallu mi nga xam ne moom bu nu romboon di daw sax bu tawee dinañ ànd ak moom topp ko fu mu jëm ñu jëm fa yàlla dogal na lii mu nekk nag ñun ñëpp ñëw fii wala man mii di wax jël naa sama engagement ci fas yéene ànd ak yow jàppale la ci ay conditions yoo xamante nii ne la nga waxoon ne amatul genn post boo xamante nii nit moo ma koy jox di ma ko fal ma koy nangu wala ma koy liggéey waaye poste yooyu tamit ñu ni tamit amunu benn poste bu ñuy laaj wala bu ñuy falu bu dul poste sëñ Touba ndax sëriñ bi jox nañu poste ba noppi waaye ñu gis ne li lay politique di demee nag ñun xamuñu ci dara yéen ko jàngi woon waaye li ñu gis ci at yi ñu fekkee xàmmee bay jël suñu carte di ko woote mooy ñi ëpp ci politiciens yi dañuy natt xelu mel ni fu nu toll rek noonu lañuy ñuy campagne dinañ leen defal aw yoon dinañ fexe ba santé bi baax dinañ fexe ba njàng mi baax. d'abord dama leen di dama leen di nuyu yéen ñëpp di leen ñaan ngeen jàllaleel ñu nuyoo bi ci mbokk yi fi teew d'abord ak euh, mbokki taalibe yi dëkkee Touba yëpp ak mbokku Sénégal yëpp euh, ñuy. jiital ci nuyoo bi ki nga xam ni moom la yàlla jaarale sababu suñu ñëw fii eh, te mooy eh, sëriñ Galas Kaltoum mi ñu dalal fii te njëkke dalal bi ci kilifaam di suñu kilifa ñun ñëpp di sëriñ Moustapha di xalifu Serigne Mohamadou Lamine Bara damay wax ni sama diggante ak sëriñ Galas eh, sosuwul ren yàgg na bu na ay fukki at lu topp ndax dama ko musa woo wax ko ne ko yéen yéenay doomi sëriñ baara yi sant mbàkke mais sëriñ baara njaboote nañu santul mbàkke def ci ñoom cofeel ak ay euh, ay teraanga yoo xam ne yii yéen ak ñoom yéen a bokk waaju kóllëre googu nag bëgg nañ ko wëyal euh, ginnaaw bi ñu ko tegatul euh, bët mu nangul ma loolu euh, wax ko itam euh, ñi mu bokkal sëriñ Momadou Lamine Baara ñëpp ñu nangul ñu ko donc loolu lu yàgg la te kóllëre googu musuñoo may mbirum politique wala yëngu-yëngu jamono mu am ci cër ba di ko xajamal wala mu ca yokk dara donc loolu la doxal ba tey mu analyser situation euh, réew mi xam ni kenn ëpp ko ci responsabilité euh, mu tànn euh, en toute conscience et en toute liberté de se battre pour que lii war a yàqu bañ a yàqu pour que pour que Sénégal bañ a bañ a yàqu donc ñuy ñuy sant bu baax ci loolu jërëjëf comme niñ ko xamee ñun ñu gis ne Sénégal béykat yi ñi nga am moom lañ ci nawet bi ñu gis jàngalekat yi dégg président mu ne waaw loolu dañu koy ñaawlu puisque dafay mel ni njiitu réew mi xamul lan mooy priorité am na vraiment feneen fu mu def itteem ak alalu réew mi fu dul di tabax ay palais parce que d'abord li muy war a njëkk a saytu loolu mooy fonction bi njëkk bu état war a régler mooy sécurité sàmm nit ñi ak seeni alal ñu bañ leen a agressé pour ñu bañ a enlever xale yi pour ñu bañ a sàcc jur gi ak yooyu loolu mooy première fonction état ñaareelu fonction état mooy mu am yoon justice boo xam ni euh, dafay euh, nekk pour ñëpp wante justice boo xam ni état bi moo koy manipuler exécutif moo koy manipuler bu neexee président mu topp kii bu ko neexee mu bàyyi kii loolu lu war saafara la ñetteelu priorité bi mooy alal bi nga xam ni moom la réew mi yëpp bokk mu doxale ko noo xam ni dana jariñ askan bi wante li ñu seetlu ci doxalinam mooy ressource nationale yi ñu am lu mel ni pétrole bi ak gaz bi daf ko jël jébbal ko frère bi mu waxoon ni du musa signe signé pour nommer ko ci dara te léegi dénkaat na ko caisse de dépôt et de consignation yooyu yëpp di ay ñaawteef ci doxalin euh, boo xam ne dëppoowul ak intérêt réew mi leneen li nga tudd aussi mooy baykat yi ñoo ngi bay ba pare ñoo jaay seen gerte njëg gi ñu leen fixeel euh, mënuñu ko ci am sur le marché national ak yeneen puisque am na bi ma toogee fii sànq rek genn kilifa goo xam ni dafa dafa jiite mutuelle de santé mais xamal na ma ne daanaka CMU bu bu Macky Sall bi tax na ñoom seen euh, euh, jumtukaay yooyu yëpp yi aju ci gérer santé bi dafa nërmeelu puisque état bi bor yi mu leen ci amel fayu leen ko donc vraiment am nañu yeneen priorité ñu gis démb wala barki démb ARMP nga xam ne mooy gérer les marchés publics épinglé ministère yu bëri ci gouvernement Macky Sall ana loolu dina ba nekk waaw loolu gis-gis bi ñu ci am mooy avant ARMP di di épingler ay ministre dafa war a épingler président de la république ci boppam parce que moom gestion du gestion bu vertueuse donc moom la ñu waroon a njëkk a saytu puisque ñëpp ci kilifa bi la ñuy xoolan ah, ni muy def rek la ñeneen ñi di toppandoo donc ci bopp bi ngay commencer jubal ci bopp bi ngay commencer def lu jaadu mais bu ñu gisee nga ne du ma sama frère après nga changé def décret nommé ko dénk ko caisse de dépôt et de consignation nga jël ay permis de euh, pétrole jox ko mu jaaye ko ay milliards moom musta gas sax teen teenu ndox waxuma ak teenu pétrole <laughs> vraiment c'est incroyable les autres vont se dire mais <laughs> s'il fait ça pourquoi pas nous donc euh, je pense que boole ceeg am na yeneen rapport yu jiitu yooyu yoo xam ni moom moo déclaré ci kanamu télévision bi wax leen yéen waa Sénégal yëpp ne leen dossier yooyu maa ci teg sama conco kenn du ci wax am na of OFNAC am na yeneen donc euh, vraiment moom lañu ñu war a njëkk a épingler moom la ñu war a njëkk saytu. Euh, mooy que ne fan yii gis nañu ba suñ gala soo xeeb daf lay jàppale waaw xam nga ñoom loolu rek moo leen dese wax dëgg yàlla nag ku ñàkk ku mel ni sëriñ galas nag man ngaa perdal ay minutes yoo xam ne dootoo ànd ak sa sago donc mën nga mën ngaa jànnaxee ba ba di def ay ay attaque mais loolu amul solo je pense que sëriñ sëriñ galas loolu yëngalu ko euh, xam na ne ñoom loolu rek moo leen moo leen dese li am solo mooy pas-pas bi ak yéenay liggéeyal askanam te loolu xam na ne mooy responsable ñaari carte d'identité yi nga xam ne fi mu ne ba en même temps ñu ngi toppandoo c'est bon c'est bon c'est bon merci beaucoup c'est bon ah ah c'est bon. non c'est bon. ok xaaral xaaral. da nga nag enregistré enregistré. léegi commencé waat commencé waat. jóge jóge de sëñ bi. waaw asma bi d'accord c'est bon. bisimilah lu may wax ko bëgg ma wax ko. nga li sabab daje président Idriss Seck ci Touba mooy li sabab ab jullit di taalibe ci tànki nemmiku ay mbokki taalibeem nemmiku ay kilifaam loolu moo ko fi indi te njëkkewu ko tey. Ah da di nag euh, dafa nekk ci itte yoo xamante ni itte yi moo laajal boppam bis yi mu war a def Touba yokk ndax li may faral di wax rek ñu bari dañ naan la kaay jàppale ma waaye moom nit ñi ñoo ko woolu mu ñëw ngir ñu jàppale ko ay nit nag bu ñu la wooloo am lu ñu bëgg am lu ñu gëm am lu ñu jàpp nekk ci engagé wu fas yéene ànd ak yow soxla la ngir loolu jàpp naa ne te Sénégal rek ñor la te li ñuy def defit lépp réew mi rek lañ bëgg a sauver incha allah amatul sañ-sañu moom di dikk bañ a dikk pour ànd ak ñun nekk ak ñun ñuy sottante xel ak xalaat ak di saafonteeg ñi nga xamante ni yitte ji ñun ak ñoom ñoo ko bokk soxla bi ñun ak ñoom ñoo ko bokk di xëy ci waxtaan guddi gont ci waxtaan ba fii ñu toll kon loolu moo doon waral ay tànkam ci Touba euh, dañ koy rafetlu nun ñi nga xamante ni yàlla dogal na ñoo nekk dëkk dëkk bi te bokk ak moom gis-gis yi ak mbooloo mi nga xam ne aju na ci sunu gannaaw euh, kon président de sec mu amuñu lenn lu weesu daal euh, di ko sant ci. ñëwam bi mu ñëw Touba ndax ñun yëg nañ ne ñëw na fi waaye xam nañ ne moom it yëg na ne ñëw na fi. jërëjëf euh, sëriñ ne bi nga defee déclaration ne da ngay ànd ak président Idrissa yëpp ñu ko teg sa kaw ana ñooñu ban message nga leen di wax. man de waxuma lu ay euh, bu fekkee da ngaa jàpp ne damaa jóge fenn nit bu amee soxla ngeen xamante am lu ngeen séq mu ñëw. ci say tànk diis la boppam ci waxtu yoo xamante ni euh, boo gëmul yàlla yow mi koy def sax doo ko def ndax am na waxtu yu guddi yoo xam ne ku la ko fëgg ñaare mën nga bañ a ubbi waaye nag mën ngaa ubbi ngir sa yërmande ji nga gëm ne am nga ko te yàlla mi ngi koy ñaani ak fi nga koy jaare am nañ ko nit nag bu fekkee da ngay jóg ngir jàpp ko ngir yërmande ki ñu doon jàppale moom euh, xamal na boppam ne am na lu yàlla def ci jàppale ko nun nag rëccuwul ci dara ndax li nu war rek lañ def ñun nag euh, ay am xel lañ yor di xalaat yor ay bët euh, xamit niñ doon doxe te jàpp naa ne ñi ëpp ci ñu doon àndal xamal nañ ko seen bopp comme que nag ni ma ko waxee woon ci poroxaat rek kii fi nekk jarul di tudd turam ku ne xam na ki fi nekk app bi nga xamante ni man bokkoon naa man Galas Kaltoom mi ak samay bokk samay xarit samay am di jàmm ñi dajale woon li koy tax ak si fii mu nekk bokkoon naa ci ci pexe yi koy dajalee nag te mu ànd ak ab yar ak i teggin yëkkati ko jox ko ko mu dajale ko ba nekk fee mu nekk mel na app ba app ba sa jeexoon na waaye nag ginnaaw tarxiis amoon na ci te bëgguñ li ci desaat ci kanam tarxiis di ci amaat ma yëkkati sama kàddu ngir réew mi ndax fi laa dëkk am naa loo fi mën am lu ma fi xam te ñi tax ma mën ko te xam ko samay bokk képp la ak samay am di jàmm te nag euh, na ñu xam ne man yàlla dafa dogal ma njëkk a génn rek wax waaye bi ma waxeeg léegi man de yëg naa ñoo xamante ni tudd seen tur duma ko def waaye li may li may yëngal gësëm na leen waaye nag xam nga lu gësamu lépp du gësamu tàbbi kon day jaadu ci man la ma waxoon te engagé ko may nekk waxtu wone di ko firndeel man maa yëkkati woon sama kàddu ca Poroxaan jël samay engagement bopp ci sama conscience tranquille ndax la ma xamoon xam naa lu ko ëpp la ma mënoon mën naa lu ko ëpp te ni ma ko waxee rek euh, yàllaa tax ma mën ko ak yonent bi ak Cheikhul Khadim ak samay bokk ak ñi ma àndal nag ñu yor seenum xel di xalaat te réew mi rek ñor leen ñu xalaat xool xam ne jëmm ji taxaw ci sama di président Idriss Seck ñu ngi jëm le 24 février 2019 te am na loo xamante nii ni ma ko waxee demande sociale la ci réew mi ci secteur yëpp nag boo koy lim. da ngay sonn te loolu benn solution rek maanaam benn mala benn jag genn wéradi la benn docteur a koy faj ordonnance bi lenn koy bind bi ma yégée nag loolu agsi na man ci laa yëgati sama kàddu maa waxoon ne kii fi nekk fa tey bee mu toog nekk président bi day jeexal le vingt quatre février deux mille dix neuf man Gallas Kaltoum maa jël samay engagement ci suma bopp ak sumay nit sumay am di jàmm ngir fas yéene yëkkati Macky Sall man maa ko wax ci fauteuil bee mu toog fa mu toog ndax bokkoon naa ci ñu ko fa yóbbu ngir incha allah ñaan yàlla suñu borom tàllal suñuy loxo ak suñuy bokk ak suñuy xarit yëkkati président Idriss Seck bi teg ko ci fauteuil bi wax nag euh, wax ji man la engagé waaye xam naa nim ma engagé ak ñi ma àndal engagement bi comme li nga wax it euh, man damay yëkkati sama kàddu di ko jox ñi dégg samay wax te mel na man di ko jox ñi xam sama yéene te bokk kook man di ko jox ñi bokk ak man gis-gis di ko jox ñi nga xam ne doxin wi may doxe la ñuy doxe xëy na taxaw wax walla fes ñu génn mënuguñ ko man nag yàlla dogal na ni mën naa ko ndax sama yitte rek ma tënk sama yitte mooy réew mi kon maa ngi wax képp koo xamante ni gi bokk nga ak man pas-pas bi te am ci yéene ni ma ko waxoon léegi ci kanamu Sëriñ Moustapha képp koo xam ne daal Galas am nga loo séq ak moom te yéene ko aw yiw te bëggal ko ndam wala nga am lenn loo xam ne tey jii gëm nga ne boo ko defaroon Galas Kaltoum xolam sedd boo ko joxee dana bég te muy lu baax di aw yiw maa ngi lay ñaan nga defal ma ko ci sama yitte ji ma am yitte yi nag yitte yi Sénégalais yi la mooy kii fi nekk lii mu yore day jeexle vingt quatre février incha allah yàlla mottali ko ci jàmm dara bañ koo jot nag waaye président Idriss Seck ñëw wuutu ko te liy wuutu nag nit ku toog fee ci di ko charte réew mi tënke ci loolu dong la tënku gannaaw bu ñu tënkoo ci nag loo xam ne ñun xam nañ ko moom min ko àndoon xam na ko kii ñu koy wutal léegi nii yéene nañ ko. te rafet nañ jot na dana jot incha allah kon maa ngi yëkkati kàddu googu di lancé sama appel ci àdduna bi nag laa wax ndax sénégalais yi yaat nañ ci àdduna bi te it la ma waxoon ne danaa dox fii laa koy tàmbalee Touba Porokhane laa ko waxee Touba laa ko tàmbalee dana dem ci région bi fu ma war a dem région yi nekk ci biir réew mi nag sama yéene ak sama bëgg-bëgg incha allah dana yegg ci fu sama kàddu yegg ba ñu dégg. ma yeggale ko fa dem fa dox ko wax ko na ma ko waxe woon danaa dox incha allah danaa wax incha allah danaa jëf ci biir danaa jëf ci biti ngir président Idriss Seck mii taxaw ci sama wet am ndam incha allah le 24 février 2019 yàlla am na ko mën na ko yàlla ñu ko yàlla defal ci barke Cheikhul Khadim jërëjëf